daa am loo xam ni mbàkke daa war a jeex ndax mu jeex moo moo mooy dëgëral sunu doxin ci suñu diggante ak moom daa am lu war a jeex te nag day jeex ñàkk gu metti gi daa war a jeex barke gu metti gi daa war a jeex yenn feebar yi kenn xamul daa war a jeex waaye sëy te amoo doom daa war a jeex ba xob bi daal te sa yow jeex daa nag sax day jeex te su ma leen ko waxee ngeen gëm ko de su ma leen ko waxee ngeen gëm ko de su ma leen ko wax ngeen di daaw ci heure bii lañ fi teewoon tey su suñ doon jël suñu résultat ci ñi fi teewoon daaw mën na maa yàq baax bi bay boo ñu xam ne tey yii de la laylatul qadar laylatul qadar nag nee nañu mooy guddi dogal waaw mooy guddik dogal waaye tey jii la laylatul qadri guddik sañ-sañ ran lay raw ren jii lay raw guddi gii tey guddi gii daanuwuma de damay waxe ci koo xam ni daa xam lépp te man lépp te muy sëriñ dama ni fii laay joxe bag yi maa koy joxe dama ni fii laay teggee jàngoro yi maa koy teggi ci barkeb sëriñ loolu aka neex a wax ndax dañ koo ñamal ba tey dañ koo xamal ba tey defal ko ba tey sañ-sañ rek a neex bu wéeru ci baaxu Serigne Saliou loolu daa mat di bàyyi xel. ñun la ñuy xaar muy Serigne Saliou xaar ñu fi keneen ma xamal xaar kuy ci kanam. ak képp Serigne Saliou Serigne Saliou lay xaar ngir mu tàqale jaam ñi ak jafe ba nañu gaañe fi nekkoon jàpp la yaa gëñi di koon. lu mat di bàyyi xel la lu mat di bàyyi xel la moo tax ñu ni aay yooyu mooy aay yu njëkk a wàcc ci alquran. fekk ku tedd ki ci jabalu nuur mooy fa mu daan tëju ci xalwaam bu tedd boobee histoire bu gudd la ndax bi nu ko jëkkee ni ko iqra daf ni man xamuma lu may jàng yén san salam nee na bi ñu ko xojee ni ko iqra xoj gi nit simple rek rey na ko ñetti yoon ngir ngir ngir ngir ngir tolluwaayu metti ngir sako benn baat mooy iqra bayee ca xew-xew ca xam nga yaa ayyuhal muddathir loolu daa am lu ko jiitu qum fa ansir wa rabbaka fa kabbir wa siyaabaka fa tahir wa rijza fahjur wala tamnun tastaksir ak yaa ayyuhal muzammil qumil layla illa qalilan baat yi ko sànni ci jëmmam te xamut lan la loolu moo waral mu mu daw làqu ci Xadija naan ko sàng ma zammiloo nii kaddu gi ñëwaat ci kawam ni ko yaa ayyuhal muzammil waa ji xumil layla illa qalilan yaa ayyuhal muddasir waa ji qum fa ansir wa rabbaka fa kabbir moo tax alquran lu diis la lu rëy la lu kéemaane la ay yooyu ñu ne mooy njëkk wàcc ci alquran sunu borom wàcce ko ci dënnub sayidina Muhammad ci jabalu nuur alquran ji tàmbali di ñëw di wàcc événement par événement par événement yonent bi sallallahu alayhi wa nee na bi nga xam ni ci la alquran wàcc ci baytul izza heure bi nga xam ni mooy bisub laylatul qadri qadri tey jii ku ko xamoon boo ñemee géej gi du saf xorom day lewat doom ngir ngir màgg goo xam ni laylatul xadri màgg la ko moo tax inna anzalnaahu fii lay fii laylatil xadr waxul ban ban ban ban heure la dañ rek wa ma adraka ma laylatul xadr xëy na bëgg la ko jàngal moo tax mu ne ko laylatul xadr xayru min alfi sahri li ci dàq nag mooy tanazalul malaaikatu war ruuxu fiiha bi isni rabbihim min kulli amri yabal gi suñ borom di yabal malaaka yi ñu fees dell suuf si di wàcc di indi ay ndigal di wàcc yërmande di wàcc ay xéewal ci xeet wi xeet wi nga xam ni laka ca dàq lépp mooy salaamun hiya ga salaamun hiya xatta matla'il fajr matlatul xadar kenn sëñta nelaw fajar ga salaamun hiya la ay fajr ay xéewal yërmaande suñu borom ndimbalam tawféexam baaxam lépp yàlla di ko wàcce ci jaam ñi ba keroog fajar gi di xar su guddi leelatul xadar moo tax guddi gii guddi gu mag la guddi gu jar di bàyyi xel tey xel mën na cee dal ndax Serigne Touba ku mu tànnal laylatul xadar am nga laylatul xadar waaw kooku ku mu tànnal laylatul xadar rek bay boo nga bay boo nga xam ni yow am nga laylatul xadar te loolu daa mat di bàyyi xel moo tax ah yaakaar naa ni. baas bi day bari nañu fi doog a xadar waaye su ma neexee ni tey jii dong lañuy ñuy doog xadar tey jii rek lañuy ñuy wax bu ñu jugee fii di ñibbi ku dem da nga maa ngi doog a laylatul xadar tey Serigne Saliou rek moo tax nga naan maa ngi doog a laylatul xadar ndax du saa jëmm ji ndax daf ma wóor ni la ñuy xaar ci laylatul xadar ngëneel yi ak yiw ya bala ñu fa jóge danañu ko seet loolu amul sax werante daa am lu war a jeex dafa am lu war a jeex te tey jii lañ bëgg mu jeex nag dëgg-dëgg nag da am lu war a jeex tey la laylatul xadar banque gi daa war a jeex feebar yi daa war a jeex fan yu gàtt yi daa war a jeex ñàkk sëy yi daa war a jeex ñàkk liggéey gi daa war a jeex day jeex waaye daa war a jeex. yow yaa ngi teewee laylatul qadar guddi goo xam ni. da nga d'accord ni mooy guddi gi gën a tedd ci guddi yi guddi sens guddi ndimbal guddi yërmande guddi tawféex guddi xaas ñu dagg suñu nelaw yii déglu leen ma rek dagg suñu yitte yii ngir di màggal si réseau xadar gii texe texe day xeeñ teddaange kenn du xaar ba dee doo ko tedd ku nar a tedd da tedd bala ngaa dee continuer tedd moom boo xaaree ba doo ko tedd war a tiit tedd boo naree tedd da war di tedd ba dee continuer tedd loolu moo waral loolu moo waral moo tax la fi nekkoon jugu fi ka fi nekkoon jugu fi lañ fi nekkoon jugu fi lañu xamoon jugu fi te liñ yaakaar du deñ daaw ci heure bii lañ fi teewoon tey su suñ doon jël suñu résultat ci ñi fi teewal daaw mën na maa yàq baas bi ndax da nga dégg ku fi wax ba nit ki est-ce ni wax dëgg la te Serigne Saliou woonu ko defal ren lay raw ren jii lay raw guddi gii tey guddi gii daanu ma de damay waxe ci koo xam ni daa xam lépp te man lépp te muy Serigne dama ni fii laay joxe bag yi maa koy joxe dama ni fi lay tegge jàngoro yi makoy teggi ci barke Serigne Saliou loolu aka neex a wax ndax dañ ko ñamal ba dañ ko xamal ba defal nako ko sañ-sañ rek ka neex bu wëru ci baaxu Serigne Saliou loolu da mat di bayyi xel jotaay bi rawna na jotaay bii mucc na Serigne Saliou lu mat di bàyyi xel lu mat di bàyyi xel yàlla bu la naree dimbali mooy xam la tax mu tànn la tàbbal la ci ndimbal loolu moom programme la du juddu waaye liñ xam ba xam ko mooy bay boo ñu xam ni tey yii de la laylatul qadar laylatul qadar nag ne nañu mooy guddik dogal waaw mooy guddik dogal waye tey jii la laylatul qadri guddik sañ-sañ lu mat di baye xel kon nañu nañu nañu sant yalla ta sant Serigne sari buñ goree ta xamni da am lo xamni Mbàkke daa war a jeex ndax mu jeex moo moo mooy dëgëral sunu doxin ci suñu diggante ak moom daa am lu war a jeex te nag day jeex ñàkk gu metti gi daa war a jeex bàgg gu metti gi daa war a jeex yenn feebar yi kenn xamul daa war a jeex waaye sëyta amoo doom daa war jeex toog ba xubbi daal te sa yow daa war a jeex daa war a jeex te nag sax day jeex te su ma leen ko waxee ngeen gëm ko de su ma leen ko waxee ngeen gëm ko de su ma leen ko wax ngeen di ko gëm ak képp Serigne Saliou day jeex lu mat di bàyyi xel lu mat di bàyyi xel kon soxna Fatou Kouida na indil jaam yàlla yi xéewal yi te baat yi baat la ci biir baat yi at mu jot dañ koy wax ndax daa mel ni bu doon bunt bu ñu ubbi la mooy suñu caabi yi ndax yonente bi moo ko jëloon jox ko sayyidatuna Aïcha ne ko dee ko wax guddi wax da yaakaar naa at mu nekk Pape moo ko daan jàng ngeen di ko aw waxtu yu gàtt na waaye na ko ñëpp wax nañ ko daan waxee na ko ñëpp àndandoo di ko wax ni ñu koy waxee ba lim biñ ci soxla mat te ñi war a toppatoo xéwal it nañ ko dina dem toppatoo di balaa waxtu wee gën a gën a jeex allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna wax leen ko ci kaw allahumma اللهم اللهم إنك إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك كريم تحب تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك كريم تحب عفو فاعف عنا اللهم إنك كريم تحب عفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب عفو فاعف عنا اللهم إنك كريم تحب عفو فاعف عنا اللهم إنك عفو عفون تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك كريم تحب عفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك كريم تحب عفو فاعف عنا اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبيل أمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبيل أمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبيل أمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم آمن رسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله وملائكته ورسله لا نفرق بين أحد من رسله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 وعده رسنال أرض نتا بوو من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين وترى الملائكة ها فينا من حول الحرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين و ها وال والقمر إذا تلا تلاها والنهار إذا جلا وال والليل إذا يخشى ها والسماء وما ها wal ardi wama taha ha wal nafsi wama tawa ha falha maha fujura ha wa taqwa ha qad aflaha man zak ka ha waxad khaba man das sa ha kadza bat samuudu bi taq waa haa qad aflaha man zakkaaha wa qad xaaba man dassaaha kazzabat samuudu bi taqwaaha idin ba'asa ashqaaha فقال لهم رسول الله نا قطع الله وسق يا ها فدم دم عليهم ربهم بذم بهم فسوا ها فلا يقاف حق با ها إنا ألف شهر تنف زلل ملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام سلام هي حتى مت لعل فجري إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام سلام هي حتى مت لعل فجر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أد راك ما لي لتل قدري لي لتل قدري خي ورن من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام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 Hapa. Hapa.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 sant nañ bu wér soxna Fatou moom xanaa nekk sant nañ bu wér ñu ngi ñaan ngeen dal ndax waxtu wi jege si na te dañu bëgg toroxlu dañu bëgg julli toroxlu ñaan ñaan gi nga xamni ci la sun aaji di fajoo nii ñëpp ci barket heure bi yaakaar daa rëy te jaami yàlla yi fi toog gaa dañuy dabu si laylatul xadri waaye nañ diglu diglu leen waay diglu leen bu ñëwee ci guddi gu tedd gii di taatal ci yiw ak kiraanga ak xéewal dafa am lu bari lu ñu war a yóbbaale ci barkeb Sëriñ Saliou Mbacké ndax mbarkeel sëriñ bi lu yaatu la ma bëggoon bu nu xëddee rek taxawalu julli gi talal loxo yi ku tedd talal tàllal yi ku tedd mu faj suñu aajo ñun ñëpp loolu bëgg na ñepp tok nañ ñepp tok ci baax bi ta dal ta dilu lolu mo ñu fi indi maa ngi sant bu baax kilifa yu baax yi fi teew yëpp tey moom am na taalib yu doon làkk làkkut waaye damay ne loqal bi rek sëriñ bi moom su ma koy nuyu sax du ma dégg ndax xët yi ni teg nañu wàññi tool yi. liggéey leen Ibra Diop. dama bëgg nga taxawee ne diglu leen ma. kiñ fi xaar. ñun kenn rek la xaar. muy sëriñ Saliou. xaaruñu fi keneen ma xamal la ko ku xaar kuy xaar kanam fekk fa mun ngaa ñibbi. Serigne Saliou laay xaar ci kanam ak képp Serigne Saliou Serigne Saliou laay xaar fii. ngir mu tàqale jaam ñi ak jafe-jafe alquran ji ñuy waxtaane baaxam baaxam lañ ko xamee mbooloo mi fi toog ñoom ñëpp ni dan yërmandeem lañ fi ñëwee Ousseynou Kane tekkiwul daal yërmande Serigne Saliou moo moo diis moo tax ma bëgg moom ma xëdd ko ma xëdd ko taxaw ne ñëpp diglu mu kenn noy nga tàggal ma Serigne Saliou li ci def ci ay miit ba salaatu gi dagg la salaatu gi ñëpp ni ñokket du taxaw salaatu googu yi ñu julli ko buñ jullee ba sëlma ñun ñëpp ñu maase ñun ñëpp maase toog ci suuf suñu mbubum daraja suñu mbubum xam-xam suñu mbubum juddu suñu lépp wax ci kanamam

an xayri rabbihi muxayyabatun faltaqran suuratan najmi muhammadul muxtaaru laa xalqa mislu alayhi salaama man lahu al-amru kal hukmi muhammadun al-mahruufu maahin wa maaniun wa bil hissi maxsuusun masuunun anil wasmi mujibun mujaabun متضمن كل داء مديه ومقوس إلى الرعب والأدم مديه جلاءنا بجانا محلل مليه ومقصود من الناس والوهم مدينة حلم متجمنة لنا جرير ومنجن من سنوب ومن سلمه مهلا عني بالنبي كل فاسد وسرت به عبدا خديما بلا خمي من الله رب العصي ابقي صلاته بتسليمي للمصطفى مخيل اليمي بتسليمي للمصطفى مخيل اليمي بتسليمي للمصطفى مخيل اليمي فإن وروة المصطفى فممسكها خدا يفوز لدى المولى في جناتي فإنه خلوة المسخى فمنسكها خدا يفوز لدى المولى في جناتي ومن يلازمه في دنيا وجاد له يوم الخيامة بالبشرى وخطاته ومن يلاسم يبلو الدار نسخته مع التدبر يسر بالسنيات ومن يمل أنه في الأوقات معتزلا فإنه سبه كفر الرسيلات خسده أن وسع تعود إلى سفر ساحل آفات دسيسات سلب وكبر وإسرار على ليب بكل بنيات ما دون الخليخات كساك طرف يقين وسادسها وسبوها بتفسير ابتداهاتي نعم الذي جعلنا نعم الذي جعلنا نعم الذي جعلنا من ذي الجلال وخادنا من غرور للفضيلات وهو المال دنيا دنيا دنيا دنيا آخرة في كل خب هنا أو في الخد نياتي منجن مجير سفيء ناصر وزر أنا يكون في البلاء يا والمصيبات فلا أفوض أمري هاؤنا وخدا لخيره بعد ربي زل برياتي يا أكرم الخلق إني خادم لك ما أهيا بمت وسب بالخزيدات ولم أري زارة دنيا التي اختطفت يدا سعير بما أسنى من أبياتي بل انتظرتك يا مولاي متقيا منك بعد ما تمحو خطياتي عليك واللالي ولسى بخير صلاة بسلام بها من المزيات وزل لي الحق من الحق المبين وزل لي الحق وصل لي الحق من الحق المبين وصل لي الحق من الحق المبين لي مَا بال وما ليس يبين علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وتلخي لم ينساتي جالب نيران أو جالب هارين والخسران لم ينني درر النار الدنيا واعتسد الباخي بخير سنيا ملكني ما لم يبوحني وخاد لي بقاء بالمن كرامتي كتاب من رفعني به إلى الجنان مصنفني ما الممات الخنا نفوسا ولسواي ساقه تنفيسا إلى سوى من انتهاء الموت نهى النفوس كلها بموته لم تنهني مخدمات الموت وقد رفعت بالبقاء صوتي موت الذين كابدوني بدل من موت نفسي ما نهاني جبل ترسي عن الموت بقاء الله أبخاني الله لوجه الله كفاني الباخي ثم مات سرمدا وببقائي يسر أحمدا نفعني ولم يضرني ولا يضرني كل علي ولا ترشي عن الأمراض والممات بقى واسمي من السمات علمني بخودي إليا البيت رافعا بالمرضيا لا شك في كوني باللمين فيه وبالكتاب واللمين ملكني اللمين واللمين كتاب باخ جاءني تامين يا ربنا هجي سلامك لمن الله يا ربنا هجي سلامك لمن ما مثله يولد في آل زمن يا ربنا خن البلاء والضرر في الأربهاء لاخر من صار سفر واصل لنا يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي من كل قدر وكفنا من الوباء يا ذا الخدر يا ربنا حجم عقوبة لمن حسدني فأنت مالك السمن يا ربنا حجم خداء الرجيما حسدني وكان لي ولي أمن علمني من لي مناي وحباه ولسواي بالأمين سببا أشكر ربي الذي لي جلبا خيرا كثيرا وكفاني سلما محمد صلى عليه من أبا بجائه بما يسر في الأبا بجلني امتداه وسلبا إلا ينفن داهما فانسلبا كتاب من خلق أما وأبا معي وخير خلق دور يا أبا سعى الذي عبد الخلاوة تيبا ولا يفارق دواما تيبا صحيت أن الله ربي وأبا لي كتابي وبدور يا أبا صحيت أن الله ربي وأبا لي كتابي وبدور يا أبا صحيت anala harbi waba lihat kita wa bidur ya apa lam yabdu mislul mustafa muhammadi silan wajaran fil baraya samadi madallanal islam wal kufram maha وبالنصيحة لكل سماء يقود بالذائر والباطن من أتاه لله في كل زمن خدمته عن العيوب أسبت والاستقامة وصفوا وابت لقانا كون المصطفى رئيسا لكل من خف الروسا خل خدما فوق كل رقبة من سار خل كل من خبأ محمد المثال ولم يأتي فيما مدى وبدل لا يأتي سبتا ربنا لم يرد نوف مثل لم يرد لو سيادة البراء يوم على ولد صفاء هو النبي ورسول والخليل وهو الحبيب والإمام والدليل برعه البديع من خير جمال وسانه الخدوس من خير كمال ثم نبي المنتقى محمد خير الوراء مختار إن سمدي أكبر كبار ñuy ñaan ci barke Serigne Saliou yàlla na ngi Saliou faj aajo yëpp zahiran wa baatinan Serigne Ousseynou Kane suñ borom yàggal ko fi ba lim yéene liggéey Serigne Touba lépp mu def ci lu kawe njottam Saliou Mbacké ba nañu gaañe fi nekkoon jàpp yaa gëñi di koon yow nu may kun fa yakoon gaawe nu ngir sa yaruma nde sëriñ bi yar nu yor nu bu ñu sëriñ Saalu yarunu yorunu bu ñu ay mbakke bun dox itam di wërim réew te nu sax ci loo